2024 dafa dóor Mauritanie dóor yu métti juróom benn bal ci dara waaye li naqari Mauritanie nag ba ñu xàddi ci mbir moomee moo di kat waa Sierra woon ña ñu indi ay mag lañu dañoo wax moins de quinze ans maanaam ñu amagul fukki at ak juróom waaye kat réew moomee ña ñu indi kat la leen manqué ñaar fukki at bariwul te Mauritanie kat ay gone yu ndaw la ñu indi ñoom gone yu ñu indi. amaguñu fukki at ak juróom te Sierra woon indi nañu ñoo xamante ni daanaka am nañu ñaar fukki at ndax ay magu jëmm lañu. loolu moo tax waa Mauritanie ñoom ndaje moomee maanaam tournoi boobee gedd nañu ko ñibbiwaat seen dëkk muy équipe national bi nga xam ne moo teewaloon réewu Mauritanie ca ndaje moomee. ñu jugee ci waa moritani jël doomu Côte d'Ivoire bi di amat Diallo moom nag ma ngay football ca Manchester United bu ñu sukkandikoo ci RMC waa Nice dañoo bëgg a doomu Côte bi yóbbu ko Ligue ba mu doxal RMC nee na waxtaan baa ngay wëy ci diggante mën Manchester United ak waa Nice ngir gone gi dem foofee doxal able googee nag du ànd ak option d'achat bu saison bi jeexee rek day delluwaat ca mën sa Manchester United jamono ji nag waxtaan baa ngay wëy ngir doomu Côte d'Ivoire bii di Amad jàlloo am vingt ans maanaam ñaar fukki at dem ca Nice jàppale leen xibaar boobu RMC moo ko xam xamle ñu jugee ci Amad jàlloo dem ca waa Real de Madrid ñoom nag jugee gi nga xam ne Casemiro war na koo jugee ca club boobee ma ngay gën di leer li ko waral moo di kat Real suba day jàkkaarloo ak Celta de Vigo waaye list ba nga xam ne ñoo war a football suba doomu Brésil bi bokkut ca liste boobee muy Casemiro kon daal jàpp nañu ne file ak ay waxtu rek doomu Brésil bi mën naa dem ca mën Manchester United ndax waxtaan ba sori na lool matt suba bi war a dox ci diggante Celta de Vigo ak Real de Madrid Casimiro du ca bokk ndax list ba génn na te nekkut ca list ba ñu jugee ci Casimiro waaye Real de Madrid googe du ñu leen bàyyeegu mbokkam mii di René Jesus moom nag Real de Madrid ca Borussia mun la ko able woon daaw able googee nag jeex na jamono ji Real de Madrid ablewaat na ko ca Liga Santander ba club bii di xiro naa moom la ñu ko abal waaye benn saison képp la àndul ak option àndul ak dara gone gi millier de terrain la kon ci Girona lay doxal Girona nag ci fàttali saison bii ñu génn ma nga woon ca Segunda ba maanaam deuxième division ren jii la club boobu yéeg ca Liga Santander ba kon Real de Madrid able na fa goneem gii di Reinier Jesus nekk doomu Brésil ñu jugee ci Reinier Jesus jël doomu Italie bi di Cesare Casede moom nag xaatim na contrat ca Chelsea officiel na Chelsea li mu def ci doomu Italie bi mi ngi toll ci quinze millions d'euros ak cinq millions yoo xam ne bonus la jamono jii nag officiel na waaye gone gi nag du football ca équipe aaba waaye bu entraînement jotee ca équipe A ba lay entraîner waaye nag ca équipe B ba lay football waaye tamit su neexee Thomas Tuchel su fekkee clubam boobee gàllu gose na mën na woo gone gi mu jàppale ko ca équipe A waaye daal li muy football ay match ca équipe B ba mooy ëpp li muy football match ca équipe A waaye nag officiel na mu muy doomu itali bi di Cesare Casede xaatim na contrat ca Chelsea ñu jugee ci Cesare Casede jël doomu Angleterre bi di Harry Winks moom nag mu ngay football ca Tottenham bu ñu sukkandikoo ci niko Sira club bii di Sampdoria nekk ca Italie dañoo bëgg a gone gi waaye kat waa Sampdoria li ñu bëgg moo di salaire bi nga xam ne jamono ji gone gi ma ngi koy fayeeku genn wàll gi Tottenham fay ko ñoom waa Sampdoria ñu fay genn wàll gi su fekkee loolu am na rek doomu Angleterre bi mën naa dem ca Serie A ba ndax jamono ji kat salaire ba muy fayeeku waa Sampdoria mënuñu koo fay loolu moo taggatee témbeel mbir mi waaye kat su fekkee Tottenham nangu na loolu able googee lu